بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تنهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها فتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير jazakallahu xayr bismillahi rahmaani rahim sunu borom mu ne yaa ayuhan naas ey yéen nit ñi ittaqu rabbakum ragal leen seen borom inna zalzalata saati shay'un azim rëng-rëng yëngu-yëngu yay am bi si penc day mbir la bu màgg yawma tarawnaha bis ba ngeen koy gis tazhalu kullu murdiatin amma ardaat dana sàggane sànni bépp aji kuy nampal ca lam doon nampal wa tada'u kullu zaati xamlin xamlaha dana wasin bépp aji ku ëmboon la mu ëmboon wa tara naasa sukaara da ngay gis nit ñi ñi ngi doon ñu màndi wa ma hum bi sukaara doonte ne màndi wuñu de walakin azab allahi shadid waaye mbugalu yàlla ma rek moo tar wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bi gayri ilm am na ci nit ñi ñuy dàgg sante ci yàlla ci loo xam ne teguñu ko ci benn xam-xam wa yattabiu kulla sheytaanin marid di topp bépp sheytaane boo xam ne ni dafa fettéerlu génn toppug yàlla kutiba alayhi annahu man tawallaahu suñu borom mu ne bind nañ dogal nañu ne képp ku ko féetewoo mi cheytaan fa annahu yudilluhu ku mel noonu day dana ko réeral wa yahdihi ila azabi sair te dana ko jiite jubal ko ca la nga xam ne mooy mbugalum sair mbokk li mooy suratul hajj di saar boo xam ne dañ ne wàcc na ci makka wàcc ci madina wàcc ci jamono yu tukki sunu borom yàlla subhanahu wa taala bim koy wàcce aay yi nekk ci bopp bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi jógee benn xazwa am na ñu ne xare Tabuuk la gannaaw ba bañ demee ba ci digg àll bi mi ngi ànd ak sahaaba yi ñu nekk ay junni junni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo leen bañ ñëwee teewu mu daal di leen di jàngal aaya yi ñu nar a jàng aaya yi bi mu ko jàngee ci ñoom gis nañ ne sahabatul kiram seen xol ya daa dundoon xol la yoo xam ne daaw ñu gis télévision yeeg mbon ya ca nekk xol la yoo xam ne daaw ñu gis journaux yeeg mbon ya ca nekk xol ya loo xam ne seen mbedd ya melul woon comme mbeddi tey nga xam ne foo tourné gis lu xaraam xol la yoo xam ne shirk bi am tey suñ diw yàlla la mboolem ciri yàlla jox ko ñeneen daw ñu dégg loolu seen xol yi dundoon moo tax ba mu leen ko jàngale ñoom ñépp dañoo sëgg di jooy radiyallahu anhum ba dañ ne mos ñu gis mbooloo mu daje di jooy noonu lu mel ne mbooloo sahabatul kiram sunu boroom lan lay wax ay yéen doomu aadama yi ragal leen seen boroom naka la ñuy ragale yàlla ndax dañuy jël suñuy dàll fëx daw ndax dafa ñu làqu ji déedéet mbokk jullit ragal leen yàlla ay topp leen ndigali yàlla topp leen ndigali yonent yàlla bàyyi leen tere yàlla bàyyi leen tere yonent yàlla nii la ñuy ragal yàlla waaye ragal yàlla du sajj sawloo saka yendoo zikr ak kaza wa kaza defal ndigal yi bàyyil tere yi sunu borom yàlla mu ne rëng-rëng bi am bi sa fenc lu bari ci mufassiruna yi ñu ne mooy bi àdduna di tukki sunu borom yàlla subhanahu wa taala dana jël suñu suuf si ak montagne yi nekk yépp explosé ko benn explosion wa humilat al ard wal jibalu fa dukkata dakkatan waxida explosion boo xam ne montagne yi sax dana def dóom loole mbokk lu rëy la sunu borom yàlla nee na jaam ya koy fekkee ki yoroon sa doom di ko nampal da nga ko sànni ngir tiitaange nga xam niñ ne réglu àdduna doomu aadama surtout jigéen bu tiitee ay doomam lay jëkk a xalaat waaye sunu borom mu ne déedéet da nga sànni la nga doon nampal mboolem lu ëmboon dana tiit ba wasin keroog sunu borom mu ne bu doon yow man ngaa ànd ak dal di xool nit ñi da ngay gis ne ñi nekk kaw suuf yépp dañoo man di di mbëkk miir yi di daw gauche daw droite et pourtant sunu borom mu ne man di wuñu lan moo waral kon tey jafe-jafe yi am borom bi mu ne mbugalu yàlla bu tar moo daanu seen kaw lii mbokk moo doon jooyloo sahabatul kiram waaye yonent bi alayhi salatu wasalaam bégal leen ne leen lii day dana am yowmal qiyaama te mooy sunu borom yàlla dana woo sunu baay aadama ne ko aadama génneel cër bi dem sawara ci sa doom yi aadama ne yàlla ñaata lay génne mu ne ko mille bu nekk génneel neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yóbbu sawara keroog la doomu aadama yi tiit di daw di man di aynal masar sahaaba yi gën a jooy yonent bi alei salaam nag nga leen dal leen xam leen ne yéen ñi ma topp xeetu sama xeet bi ñi ngi mel ci yeneen xeet yi ne benn nag bu ñuul kukk mu am benn tupp bu weex bu ca nekk ca man jàpp naa ne àjjana day yéene nar a nekk kaaru aljanna ak mboolem xeet ya fa daj yépp sama xeet mooy nar a nekk kaaru aljanna sahaaba yi kabbar mu ne jàpp naa sax yéenay ceeru aljanna sahaaba yi kabbar mu ne jàpp naa sax yéenay génn wàllu waa aljanna ala kulli xaal loolu bég la bu yeneen ci bi dalaloon sahaaba yi waaye mbokk yéen jeunes yi def ay concours bépp concours boo xam ne dañ ne kat lañ cey jël mooy un sur mille balaa sa xele dal da ngaa réussir am déet ñu noonu àllaaxira noonu lay demee su ko defee kon mbokk borom boobu nag bi mu waxee wax ju màgg ji mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne ñi ngi dàgg sant ci mbiri yàlla te teguñu ko ci benn xam-xam ci ak bëri mbokk suñu jamono yi tey yàlla nee na sëñ juubam ne yàlla kaza wa kaza haatu burhanakum ana ban preuve lañ ko teg dara ci njort rek ci njort rek day leen déglu rajo yeeg télévision yi ci jamono rawane événement yi nga xam ne léeg-léeg ñu nit ñi xewal ko lépp lu yàlla subhanahu wa taala moo moon jox nañ ko keneen ku dul yàlla bal wallahi sama nopp yi may na ma koo xam ne nee na sëñ diw yàlla defal na ko lu mu defulul boppam yaa ngi dégg loolee mbokk ay mbir la yoo xam ne suñ borom mu ne bi xëyri ilm fan lañ ko jële seytaane moo leen di wax yu rek ñuy wax shayatin al insi wal jinni yuuxi baaduhum ila baadin zuxruf al qawlu gurura seytaane leen di wax yu ñuy wax di leen nax ci ay gént di leen nax ci yu kenn xamul te sunu borom nee na seytaane day yàlla mu ne dogal naa ne képp ku ko topp dana la gindi dana la gide ba tabbal la ci mbugalu sawiir loolu it mbokk ñu xam ne àdduna ñaari wootekat ñoo ci nekk wootekat yooyu woote jëme ci yàlla ak wootekat yooyu woote ci kaddu seytaan loolu moo tax ba gàllawaay jullit fagarul ca góorgóorlul ba lépp looy wax ci sa diini lépp looy def sa diini nga utal ko tegtal yu leer bañ koo teg ci ay njort ak i foog yal na yàlla yombal lool ci ñun waaw bismillah Cheikh Ousmane ah ah waaw non waaw mooy ci li li sunu borom wax ci seytaan waaw borom bi dani yàlla dogal na ne képp ku ko féetewoo dana ko réeral ku ko féetewoo ci àdduna dana ko réeral te mbokk doomu aadama mi da ngay féetewoo yàlla comme nañ ko jàng sànq mooy rabbuna rahman al mustaan ala ma tasifoon amma ki féetewoo cheytaan mooy ki topp jéego cheytaan cheytaan ne digal la ak njabar cheytaan ne digal la kufr digal la nifaaq nga féetewoo ko sunu borom mu ne dana la réeral ba pare dana la jubal yóbbu la ci mbugalu saxiir mi ngi noonu waaw waaw
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج
waaw mbokk yi dañuy continuer ci lii am ñu dellu ci cassette bi ah ah Cheikh Ousmane yaa ngi dégg ne imam waxu ko de mbooloo mee ko wax waaw léegi moom bu bu soobee yàlla dañuy lii mooy cosaan boo demee ci place tafsir yu mag yëpp cosaan ba mooy nit mooy toog di jàng te it insha allah la nu zakki dañu sellanal yàlla ci kenn waaye jàpp nañu cassette yi ñu indi fii it dàquñu koo jàng loolu moom la chak yàlla yàlla barkeel ko bi ngi noonu ala kulli haal kon sunu borom subhanahu wa taala mu ne yaa ayuha nnaasu ay yéen nit ñi in kuntum fi raybin min al baas su dee ne da ngeen am sikk sàkk ci déeg dékki fa inna xalaqnaakum min turab yéen ñépp day maa leen bind ci suuf summa min nutfa gannaaw ba ma bind leen ci toq ma ni yow summa min alaqa gannaaw ba ma bind leen ci luy wékku ñu ngi noonu alaqa doomu aadama bi commencé day tafu ci fa yàlla def ci biiru yaayam mu daal di fay wékku doonte ne ne loolu mooy la ci gën a wér summa min mudoxa gannaaw ba mu nekk mudoxa mudoxa mooy lu ñu sàqami lu ñu sàqami lu ndaw loo sàq mi loolu la arab yi lu loo xam ne dafay toll ci lu ñuy sàq mi wala arab daan wax mudduxa mu xallaqa mooy boo xam ne bu yàlla bind la daf ko mu nekk doomu aadama wa xëyri mu xallaqa ak loo xam ne nii yàlla da koy génne arrêté mbindam nga li nu bayyina lakum li lépp def nañ ko ngir leeralal leen ñeel leen wa nuqirru fil arhami ma nasha dañuy saxal ci biiru jigéen ya la ñu ca soob ila ajalin musamma ba ci digg boo xam ne bu ñu tudd la summa nuxrijukum tifla gannaaw bu ñu génne leen ngeen nekk ay liir summa li tablugu ashuddakum gannaaw ba ngeen jot la nga xam ne mooy seen kattan wa minkum man yutawaffa am na ci ñoo xam ne ne daal leen faat avant loolu wa minkum man yuraddu ila arzalil umur am na ñoo xam ne daal leen delloo ci gën a suufe ci dund li kay laa yaalama min baadi ilmin shay'a ba dootu xam gannaaw xam-xam dara wa tara al arda hamida da ngay gis suuf mu nekk loo xam ne lu wow la fa ida anzalna alayha al ma suñu wàccee ca moom ndox ihtasat mu daal di funki ihtasat mu daal di yëngu warabat mu daal di funki wa ambatat min kulli zawjin bahid daa di meññi ci bépp gàncax goo xam ne nii gu taaru la mi ngi noonu bokk sunu boroom téeram bu tedd bi bokk na nu mu ciy gën a défendre mooy leeral nit ñi ni yàlla kenn la défendre ne moo yónni ay yonentam waaye it leeral ci place yu bare bare bari réalité bi doomu aadama war a gëme ne allaaxira am na moo tax mu ne yéen nit ñi képp kuy sikk sàkk ci ne dee dekke am na yow xanaa xamoo ni yéen maa leen bindoon ci suuf ay sunu baay aadama cosaanam ci suuf la jóge mu wuteeg li ñuy jàng sunu lekkool yi ba sunu jamono yi tey seen xale yi nekk sixième lycée ba tey ñu ngi leen di jàngal ne ñun ay siti golo lañu waaye mbokk loolu amut doomu aadama mësul jaar ci golo yàlla bind suñu bàyyi aadama bind ko ci suuf génne ko mu nekk nit gannaaw ba mu daal di ciy def ak ruuxam comme ni ngeen gis ay matière plastique dañ koy defar ba tey boo demoon ci atelier tailleur yi gaa yaa ngi ci nettali benn anecdote xaw ma dëgg la am du dëgg ñu ne benn caamin daa jóge ci àll ba ñëw ci romb atelier tailleur bi fekk ñu teg seen statue yooyu seen poupée yooyu mag yooyu nga xam ne xam ngeen ko mu romb salaamaaleykum kenn fayu ko mu ñeen waa gaa yeeg ñii gën a ñàkk teggin waay dégg nga na am ku jóge ci àll bi da ngay foog ay nit lañu gis ngeen ala kulli xaal doomu aadama mooy defar loolu naka ñoo nit sunu borom noonu la jëlee ban defar ci sunu bay aadama wal ci ak ruuxam gannaaw bu mu nekk nit mu génne benn faaram bind sunuy maam xawa ñu commencé di jurante ba ñun ñëpp ci loolu lañ jóge waaye gannaaw yow doomu aadama bi ngay sosu yaa ngi sosu ci toq ma ni yow boo xamee ni nii la cay nekk doomu aadama tey scientifique yi gis ko muy ay spermatozoïde doomu aadama buy sëy benn sëy mën na ci génne lu ëpp cinquante millions de spermatozoïde borom boobu daal di lay jël commencé la ci sa biiru yaay jaarale la ci ay étape nga nekk alaqa ñeen fukki fan tafu ci sa biiru yaay gannaaw ba suñu borom def la mudoxa mudoxa boobu bi ko scientifique yi gisee tey doomu aadama fi muy commencé boo ko génne woon da ngay gis trace lu mel ne trace ay bëñ moo ci nekk comme boo jëloon si nga matt ko génne ko sa bëñ yi ni mu ciy tegee da ngay gis ne embryon bi biy commencé naka noonu noonu lay demee te ba ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax kenn xalaatul woon ne tey jii laboratoire yi dana am ay microscope dana am suñu borom yàlla nee na loolu am na lu mu cay yeggale mu nekk doomu aadama am yoo xam ne dañuy dañ koy averti mu daal di génn mu ngi noonu xamal ne foo amee mille naissance yaa au moins deux cent à trois cent avortement yoo xam ne matuñu ñoom yàlla génn leen borom boobu subhanahu wa taala mu ne may tànn lu ma neex dugal ci biiru jigéen bi léeg-léeg mu jël benn bu ko neexee def ko góor wala def ko jigéen léeg-léeg mu jël ñaar def bii góor def bii jigéen ñu ay cheikh léeg-léeg mu def ñett ñeent at yi la passé am na ko amoon ci Amérique juróom-ñetti doom mi ngi noonu juróom-ñetti doom gannaaw ba it sunu borom mu ne ba ila ajalin musamma su ko neexee ëmb bi am un mois mu yàqu trois mois mu yàqu su ko neexee mu def six mois mat na gën a dund neuf mois léeg-léeg mën na dem ba deux ans léeg-léeg mën na dem sax ba quatre ans imaamu Malik rahimahullah nee na am na ay dëkkandam yoo xam ne ëmb na ñetti ëmb bu ne quatre ans la ëmb imaam Dahak rahimahullah dañ ne deux ans la ko yaa yaayam ëmb sa mooy yàlla mooy def lu ko neex ni ngi noonu loolu bu ci nekk sax di sikk sàkk ci ne inna allah ala kulli shay'in qadir mooy ñoo koy bàyyi ci biir ba lu ñu ca neex gannaaw ba sunu borom mu ne ma génne leen ngeen doon ay liir di leen yokk ba ngeen doon ay ponkal léegi nag xoolal yow mi wet ji naan ah non nit ki bu dee poussière lay doon nu muy dekkewaate waa gars yi toq ma ni yu nu muy nekk doomu aadama li yàlla ko defar ni benn deuxièmement mooy liir bi juddu tey boo ko mënoon a photo denc photo bi léegi ñu bàyyi ba mu nekk ponkol ba mu 30 ans ñu génne ko ne ko ah, liir bi de moo nekkoon nii tey gars yi ñaar yooyu ndax wutul comme penkook sowo yàlla mi ko defoon liir tey def ko nii ndax mënul demu dekkal ko waaye sunu borom yàlla nee na am na ci yéen ñoo xam ne du ñu yegg seen kàttan dañuy dee jiitu loolu am na ci ñoo xam ne yàlla mu ne dama leen di bàyyi ba ñu yegg gën jaa suufee ci dund ba sunu borom nee na dootuñu xam dara te mbokk doomu aadama bu yàggee ci kaw suuf dana dem ba dootul xam doomam dana dem ba dootul xamati dara ci kaw suuf loolu la yonent bi alei salaam doon muslu yàlla boo ma yóbbu ila arzulil umuru julit wurul ñaan yàlla yegg ci étape boobu abadan doonte ne gudd fan lu am solo la tànk yaay nga ànd ak sa xel di mën a jaamu yàlla lu am solo la amma boo demee ba nar a dugg ci naax yàlla faat la mooy la gën ci yow gën ci say mbokk gis ngeen loolu kon la sunu borom yàlla subhanahu wa taala wax ne preuve bu leere ngi nii ci étape yi yàlla di def doomu aadama muy changer complètement ci ne day dekk lu am la waaye loolu tamit xëy na mën ngaa wax ah ku dekk daal gisaguñ ko sunu borom mu ne kaay ma wax la loo xam ne yaa ngi ci teg sa bët te moo di ne da ngay xool suuf mi ngi nii gonañ ndakaaru xamuñu luy lokkot ay boo laajoon ñoom Bilal Thiam ak ñoom Cheikh Ndiaye xam nañ ko dañuy dem bu mois de mai jotee ñax yi nekk ci tool bi yépp boo koŋ dañ koy dajale def ko ay paa taal ko ñu koy wax ay sirbu loolu mooy lokkat taal lépp mu takk mu daldi wow koŋ tool bi tàlli ñareet doo gis dara waaye sunu borom nee na bu tawee léegi nga jaar fi une semaine suuf bi jóg na ba génn gàncax soo fa jaaraatee trois mois après gis dugub joo xam ne ma nga fot ci jëm ca kaw nga mën caa dagg dem réere ji gaa yi suuf boobu dee woon woo koŋ ki ka dekkal ba génne ca gàncax googu ndax mënul dekkal doomu aadama yi de ah kay loolu tax ibrahima alayhi salaam bi mu ne yàlla wan ma nooy dekkale ñi dee woon sunu borom wan ko wan na ko ko na ko jëlal ñeenti picc rey leen tasaare leen ibrahima jël ñeenti picc rey leen tasaare leen gannaaw ba mu woo leen picc yépp yàpp yi dajaloo plume yi mooy dunq yi dajaloo ñu nekkaat ay picc ñëw ci kawam loolu ñun fekkewuñ ko waaye suñu borom da cee pare rek ne masalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ka masali habbatin anbatat sab'a sanabila yow mi fekkewul ba picc ibrahima yi di dekki ñu ne waaw mu ne xoolal sa tool baay bi ngay gis xoolal pepp dugub bi nga jël dugal ko ci kaw suuf mu nëpp suñu borom yàlla jël ko génne ci gàncax goo xam ne day nooy ne coton yàlla di ko màggal di ko màggal ba nga mën caa dagaat ay gub yoo lekk ki gëm lii wurtawee di bisu penc loolu tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala jox ñi misaal yu kawe yooyu yal na yàlla boole ci ñi ko gëm bañ koo bokkaaleeg dara bisu penc bi ñuy xaar yàlla nekk ci ñun bisu teraanga yàlla na àjjana nekk suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad ayabul bii di ca ñoo xam ne loolu it ak jaamu yàlla la gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkoon sahaaba yi te mooy ku ci man di woor fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom ci weeru lislaam jamono ji ñu toll tey jii la woon ak suba ak gannaaw suba man nag dama ko fàtte woon ba tey romb na ma la shakka ne du ne riwaaya yiy wax dafa wax rek ci wàllu koor ayaamul biit bal yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu yaay Aysa lam ñuy wax mooy daana woor ñetti fan ci weer wu nekk waaye daawul itte woo ndax ca premier ba la wala digg ba la wala fin ba almuhim mooy amoon nga aada di woor ñetti fan deppali nga ko ayaamul biit falilahi alhamdu ayaamul biit yi romb na la xoolal altine alxames nga woor sa ñetti fan heure boo ko waree rek baax na waa ji nga xam ne moom dafa jàpp ne aada woon a daal ñaari rakk yi fajar toujours day julli suba ba pare doog ko fay loolu lañ ciy dégg mooy toujours day biddanti waaw waaye bu dul woon loola moom jàpp ma ne doomu aadama war naa mën a saxoo loolu ndax lu way gàtt gàtt xam-xam xam ne ne ñaari rakk yi fajar mooy naafile yi dañ koo war a julli avant farata bi amma nag bu dee ngant am na boo xam ne nii nelaw nga biddanti nga ba ñëw ci jàkka ji fekk ne ñi nga julli farata bi su boobaa moom da ngaa war a ànd ak ñoom julli farata boo sëlmalee nga doog a fay sa ñaar rakk yi fajar bu la neexoon it bàyyi ko ba jant bi fenk ba ba onze heures nga doog ko fay fi jant bi fenk sept heures et trente jamono yi tey jii ba ba onze heures onze heures et trente foo ko fi fayee baax na amma saxoo di ko def tous les jours gannaaw farata bi loolu moom jumte la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ala kulli xaal ñaari rakay fajar dañ ne mën nga koo fay tànk zawal jotul zawal bi da ngay gis ne suñ jamono tey peut être ay une heure mooy quart yooyu lu demoon lay toll su ko defee yow mi amoon ngant ci ngay julliwoo ñaari rakay fajar fi jant bi fenkee mën nga koo julli mubashara fi nga sëlmalee la nga xam ne moom mooy suba amma buñ dee ba jant bi di waaj a fenk dañ fay tere ñu naafila su fenkee nag ba dox lu mat un mètre muy entre dix à quinze minutes su boobaa naafila dagan na mën nga ko def boobaa zawal di jot wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah bismillah bismillah waaw bismillah waaw waaw bismillah waaw salaamaaleykum waaw salaam waaw dama doon laajte ci weer yi nga xam ne moo nekk ci ci islam yoo xam ne weer yi nga xam ne ñoo ñoo gën a dagan ci jaamu yàlla yi yenn jaamu yàlla yëpp yoo xam ne dañ koy def ci yeneen gox yi ak yeneen weer yoo xam ne yàlla dagan na ci yeneen jaamu yàlla ak ñan weer lañu ko compte ci weer ala kulli xaal ala kulli xaal yaakaar naa ne jullit yépp xam nañ ne bu dee woor moom weeru koor farata la loolu moom du lu ñuy laajte bu dee ne am na jaamu yàlla bu ñuy wax aj it kenn du ko def lu dul ci aj ñu ngi noonu amma bu dee ne yeneen koor yi bokk na la ca gën mooy li ñuy tuddee ashhurul xurum mooy weer yi yàlla wormaal yooyu da ngay gis ne moo gën ci loo xam ne nii dañ ci woor boobu it ba nga xam ne moo ci gën mooy li ñuy tuddee weeru muharram ñu ngi noonu bu dee ci wàllu koor gi ngay laaj amma bu dul loolu moom jaamu yàlla yeneen yépp yàlla da ko faratal ci julli yi ak zakkaat yeeg yeneen yépp mooy ci at bi yépp mën na suñu ko faa def wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam
am bari na ay jullit yu bari yoo xam ne dama jàpp ne boo jëlee un pour cent un pour cent bi daal ci def seen ubbee kii ba tax loolu am mënut a jël bàkkaar tolluwaay boobu ci la
li mu waxuma ko de waaw bu ne dañu nekk ci mille quatre cent vingt sept loolu waaw est ce jullit war na yi ba ubbee loolu toujours ak ak te boo ko laajee ak parce que rek daal ala kulli xaal ndax jullit yi bëri boo leen laajoon ci ban at ci lislaam la ñu nekk xamuñu ko li ñu xam mooy ati nasaraan yi waaw loolu moom culture occidentale bi nga xam ne moo ñu not mooy waral loolu donte ne ni jullit war nay xam li nga xam ne mooy datu lislaam weer wi nga nekk nga xam ne maa ngi ci weer sangam maa ngi ci at sangam su ko defee weer wi la ñuy tuddee weeru safar ci arab sunu maam yi ñoo ko tudde woon digge gàmmo mooy weer wa nekk ci diggante tamxarit ak gàmmo ñu koy tudde digge gàmmo gis ngeen ci bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaayee ba tey ñu ngi ci 1437 junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar loolee war nañ koo xam sunu ndaw ñi xam ko am naa nag ku ko réere ndax day am bakkaar laa réere loolu it du tax nga am bakkaar wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon mbokk bon yaakaar naa gisu mooy ci gannaaw mën na si naa mujjee kii li muy wax rek mu ne ndax tey li ñuy bëri gis ndaw ñi dañuy utiliser Viber yeeg Skype yi nekk di ci waxtaan ci waxtaan ci ay caaxaan te la ñuy ña ñuy waxal dagganuñu leen ala kulli xaal mbokk xam nañu ne ki nga taxawal di waxtaan ak moom ak ki ngay waxataanal ci Viber ba wala Skype wala lu mu mën a doon yooyu yépp mën nga ca am bànneex ba ñenn ñi sax mën nañ caa jóge seen jàpp toj wala ñu sangu ji ala kulli xaal ñu xam ne daal daggan na góor ak jigéen waxante fii ak ñi ngi yem ci maaruf mi ngi noonu wa qulna qawlan ma'rufa loolu la yàlla wax soxna yeneen yi wala tada wala taxda'na bil qawl bu leen di wax wax yu nooy fa yatma alladi fi qalbihi marad am na ci ñoo xam ne góor yoo xam ne seen xol dafa feebar kon yow jigéen boo demee ba wax ak góoru jaambur qul na qawlan maarufa commerce ngeen siq wax leen ko ak mbokk ngeen siq wax leen ca am njàng ngeen siq wax leen ca am maa koo xam ne du sa soxna ngeen nekk ay heure di caaxaan di caaxaan loolee mbokk nañu xam ne euh, du lu lislaam gërëm bon am na benn conférence bu ñuy yéglee mi ngi am dimanche bii di ñëw ci juma bi nekk ci suufu pont euh, stade bi ki koy def mooy imam Ousmane Gallo Dioka ci pexe yi seytaane di pexe doomu aadama mi ngi am gannaaw takkusaan mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain